société nationale d'électricité bu jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi de la sax xëy xibaar naan ñu ci conseil présidentiel bi coow lu rëy juddu woon ci xaalis bi nga xam ne moom la wax ne Jakarta man yi ñoom la ko war a jox ci lu jëm ci coronavirus bi yéenekaay gi nee xaalis boobu nag Mansour Faye mi nga xam ne dafa waxoon ne jox nañ ko góornóor yi góornóor yi taxaw ci kanamu njiitu mi di Macky ne amul benn xaalis boo xamante ni lépp loo xam ne jëm na ci wàllum dem beeg dikk bi maanaam mer na ba maara taal yi moom Mansour Faye génn na ci pata gi nga xam ne maanaam moom la nekkoon nee na 450 yi nga xam ne maanaam Jakarta maan yi moom lañ leen war a jox xaalis boobu maanaam ma ngi ci caisse trésor yi yéen a di Vox Populi ñu xëy fekk fa Malick Ndiaye bu Pastef la mu xam ne nee na Macky Sall jamono ji liggéey réew mi moo ko war waaye nag Macky Sall dafa fu nit maanaam nañu ko maanaam weex na xàtt ci ñi nga xam ne ñooy borom oto yi ndax bëri na yoo xam ne ku fa dem ñu ne la essence jeex na gasoil jeex na yéen a kaay gi nee na transporteurs yi ñi nga xam ne ñooy transporter essence ak gasoil ñoom ñoo am leen naqari di laaj ay indemnité ak ay prime de risque kenn faale wu leen ñu demoon ab gerew waaye nag gerew boobe nag weex na xàtt ndax nag gerew boobe daal mbooleem liggéeykat yi nekk ci wàllum transport hydrocarbure dañoo suivre à cent pour cent gerew boobe nag moo tax sénégalais yu bare a kaay gi nee na syndicat ba delluwaat yéene gi nee nag ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi nekk ci SUDES njàng mu kawe mi ñoom nag dugal nañu ab préavis de ñoo ngi dànkaafu état bu Sénégal yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi ginnaaw Macky Sall bi mu waxee mën a gër géex alxamis bi nga xam ne moom la ñu génn Aminata Touré ni ki démb nag moo jëloon leng yi ki nga xam ne ay jamono nekkoon na fi premier ministre bu Sénégal Aminata Touré nee na mënoo nekk nag ci biiru pax ba pare continuer di gas da taxaw nag génn ba pare nag commencé gas Aminata Touré journal bi nee na jubbanti na Macky Sall la Macky Sall waxun lépp Aminata Touré daan na yàq yéen a kaay gi de xëy wax ci coronavirus bi nee na nag personnel médical bi nga xam ne ñoo nekk Jurbel war a jiitu ci lu jëm ci wàllum ñakku gi ñoom seen bopp ñoo lànk kandaare bañ a jël li nga xam ne mooy ñàkk yi maanaam dossier yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na accident bu méttee métti moo am ci Tiwaawoon ci am ne am ay gaañu gaañu yéen a kaay gi di nee nag ginaaw ñetti naufrage yoo xamante ni am na ci waaxu libi yi lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn daan ñu ñàkk seen bakkan ci biir ndox mi yéen a gi ne nag ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci gaal yooyu maanaam nag doon nañu woote wàll waaye nag kenn wàlluwu leen ONG alarme fun nee na nag lii du ndax ñi nga xam na ñoo nekkoon ci ndox mi ñoom nag woote nañ ay yoon yoon nag ngir nag garde côte libyen yi ñëw intervenir waaye garde côte libyen yi ñoom ñoo lànk kandaare ba ñu ñëw dimbale ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci gaal yi tax na nag ñetti naufrage yooyu toll ci téeméer ak juróom ñaar fukk ñaar ñàkk ci seen bakkan am na ñoo xam ne daat nañu siira ci yéenekaay gi nee lu toll si ñaar fukki junni cay nit ñàkk nañ seen bakkan ci ndox mi ci atum 2014 ak léegi di estat xëy yóbbu ñu Angleterre Premier League nee moo am tey ji diggante West Ham ak Chelsea yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Tapha Tine ma ngi Boy Niang nee na combat bi en tout diggante moom du yomb te ñi nga xam ne ñooy amateur yi maanaam dinañu am lu leen neex ndax dinaa bëre ak